daleen ak jàmm seen seen bii di Buzz M TV ci seen acte 10 jours ci waxtu bi ñuy wax ni ci réew mi di Sénégal ci campagne électorale bi ñu fiy amal ku nekk ci candidat yi moo ngi taxaw di fa gëddënam naan d'après ay sondage bu boppam dina gañe élection yi ci premier tour yi ci réew mi di Sénégal waaye ci li ni mel buñ sukkandikoo ci sondage yu télévision bi di France 24 di amal la ci sondage boobee kii di Amadou Ba di candidat bi nga xam ne ne moom la kii président Macky Sall tànn jëlu fa premier jëlu fa deuxième jëlu fa troisième jëlu fa sax quatrième. si li ni ci sondage boobee waa France 24 di amal ñoom ñoo ngi basé wu ci nombre de vies yu candidat di am ci vidéo yu ñuy posté jëmale ko ci campagne électorale yi ñuy amal fépp ci réew mii di Sénégal ci sondage yooyee waa France 24 di amal nag ku si jiitu du kenn ku dul kii di Bassirou Diomaye Faye di candidat bi nga xam ne ne moom la kii président Ousmane Sonko daal di taamu daal di koy joxoñ nee ne waa Sénégal nañ voteel kookee ginnaaw kii di Bassirou Diomaye Faye candidat bu jël deuxième du kenn ku dul kii di Cheikh Tidiane mi nga xam ne ne tamit allié kii di Bassirou Diomaye Faye la ci élection présidentielle 2024 yi ñuy jëm ginnaaw kookee di Cheikh Tidiane Dièye bu jël troisième du kenn ku dul kii di Habib mi nga xam ne tamit allié la ci ki di basiri jomay fay mi nga xamne ne ne ki di président Ousmane Sonko moko ko ngir sénégalais dal di koy voteel waye tamit ginnaw ki di Habib Sy candidat bu jël 4e du kenn ku dul ki di Anta Babacar Ngom mi nga xamne ne mo ngi lancer ci politique ci di Sénégal waye tamit ginnaw ki di Anta Babacar Ngom candidat bu jël 5e du kenn ku dul ki di Aliou Mamadou Dia di candidat au pire ci élection présidentielle 2024 yi jëm waaye tamit ginnaaw kii di Aliou Mamadou Dia ku ci topp du kenn ku dul kii di Amadou Ba di candidat wu kii di président Macky Sall ci élection présidentielle 2024 ñi jëm donc kookee di Amadou Ba ci sondage bu waa France 24 di doon amal la kookee sixième la fa jël ci candidat yëpp ginnaaw li ni mel kii di Cheikh Tidiane Dieye mi nga xam ne ne bokk na si candidat yi ñu validé seen candidature ci élection présidentielle 2024 ñi jëm ak kii di Habib Sy mi nga xam ne tamit validé nañ candidature am ci élection présidentielle 2024 yi ñi jëm ñoom ñaar ñooñee dañoo bëggoon a retirer seen candidature ci candidat yi nga xam ne ne dañu leen di tànn ci joŋante présidentielle 2024 yi ñi jëm waaye ñoom ñaar ñooñee ginnaaw bañ yónnee seen i mandataire biir conseil constitutionnel ngir ñooñee daal di leen di may li ni mel daal di antu ginnaaw ba seen i mandataire àggee foofee waa conseil constitutionnel dañoo bañoon ne duñ leen recevoir ba noppi dal di leen di booleeg gendarme yu nekkoon foofee ngir ñu dal di leen di génnee biir conseil constitutionnel. si li ni mel nag buñ sukkandikoo ci sept sages yu nekk biir conseil constitutionnel la ñoom ne candidat bii di Cheikh janjey ak candidat bii di Habib Sy mënatuñoo retirer seen candidature ci waxtu bi ñu toll nii ci réew mi di Sénégal ndax ñoom ne candidat bii di Habib ak candidat bii di Cheikh janjey dañoo yéex a wax que ne dañuy retirer seen candidature jëmale ko ci élection présidentielle 2024 ñi jëm waa conseil constitutionnel ne ñooñee buñ bëggoon a retirer seen candidature ba noppi daal di koy teg si yoon dañ ko waroon a def lum dee dee trois jours avant ñuy clôturer campagne électorale bi ci réew mi di Sénégal waaye ñoom ne ñaari candidat yooyee mënuñoo xaar ba mu des benn jours pour ñu clôturer campagne électorale ci réew mi di Sénégal ñu ñëw ne dañuy désister maanaam dañuy retirer seen candidature ci réew mii di Sénégal ñoom ne li ni duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba. ginnaaw li ni mel kii di Amadou Ba ginnaaw bu ko kii di Bassirou Diomaye Faye dëkkee di ko tëkku naan pour mu amal ab déclaration de patrimoine ndax kookee di Amadou Ba ay loxoom setuñ tey setuñu suba si li kii di Amadou Ba ginnaaw bañ ko invité démb ca TFM yëkkati woon na foofee ay kàddu daal di xamal sénégal yi que ne du def déclaration de patrimoine am tey du ko def suba lu dul dañ koo fal mu nekk président ci réew mi di Sénégal ndax ne li ni mel la constitution bu réewu Sénégal daal di wax te moom lu constitution bi wax loolee lay daal di jëf. ginnaaw ba kii di Amadou Ba jibalee kàddu yooyee nag kii di Mollah Morgun di ab cyber activiste yëkkati na ay kàddu daal di ko siy tontu. si li ni mel kii di Mollah Morgun ne kii di Amadou Ba daa war a def déclaration de patrimoine am ndax ne li ni ab demande sociale la sénégalais yëpp ñoo bëgg a xam kii di Amadou Ba fan la jëlee milliards am yi waaye tamit kii di Amadou Ba milliards am yi buñ ko xayma ci ñaata la toll. ginnaaw li kii di moo gën daal di woyal ne kii di Amadou Ba bu bëggee wax que ne day mëbboo ay constitution te loolu moom moo sabab. du def ab déclaration de patrimoine am ne loolee ay dóor la ndax ne kii di Amadou Ba ànd na kii di président Macky Sall ñuy jalgati constitution bi guddeeg ngoon ci réew mi di Sénégal te kookee di Amadou Ba musu see yëy musu see yàbbi donc tey buñ ko laajee ay déclaration de patrimoine daa war a génn daal di leeral sénégalais yi waaye bu mu fi xalaat mu boo ay constitution ndax kookee gëmu ko ndax ànd na kii président Macky Sall ñu koy jalgati ci réew mi di Sénégal kii di Anta Babacar Ngom bokk ci candidat yi nga xam ne ne dañoo validé seen candidature ngir ñu bokk ci élection présidentielle 2024 ñi jëm kookee tamit daal dinay tëkku kii di Bassirou Diomaye fay mi nga xam ne tamit ab candidat la bu ñu validé candidature am ngir mu bokk ci jongante présidentielle 2024 ñi jëm te bokk ci opposition bi si li ni mel kii di Anta Babacar Ngom ne kii di Bassirou Diomaye fay dafa tiiñal papam ndax ne kii di Bassirou Diomaye fay moo moo wax kii di Babacar Ngom di papam que kooke kookee dafa salfaañee dafa jël su xaalisu suufu béykat yi nekk ca Ndingler daal di koy dugal ci ab banque ne li ni mel nag na kii di Bassirou Diomaye fay daal di génn daal di koy leeral wala lu ko moy dina ko daal di porter plainte ñu daal di koy jàpp daal di koy tëj ci kaso bi ginnaaw li ni mel bundo xatal bu patriote deuk di bundo xatal ki di diou di Fall ci réseaux sociaux yi di ko ŋàññ naan ko amul xam-xam na dal di wat avant muy ñew ne day nek candidat ci élection ci réew mi di Sénégal li ni mel melo na ki di pap Djibril Fall ba ke demb ci ben meeting bu mu dan amal mu dal di tekkou candidat wu Pastef bi di ki di Bassirou jamaay fay ci li ni mel ki di pap Djibril Fall ne lu leer ba am mom moy que ne amul ben candidat ci 19 candidat yi nga xamne ne dañoo valider seen candidature ci élection présidentielle 2024 yi ñuy jëm ku ko ëpp xam-xam ne ñooñee ñëpp mën nañ ko ëpp expérience waaye kenn si ñoom ëpp ko xam-xam te ne buñ bëggee leeral li ni mel nañ daal di tëgg benn débat bu contradictoire bi nga xam ne ne moom ak kii di Bassirou Diomaye Faye di candidat wu patriote yi lay doon bu ko defee ku nekk si ñoom daal di andi ab programme am ñu daal di fay amal ab débat bi nga xam ne ne ay xalaat yu wuute ñoom ñoo fay tase ne bu ko defee sénégalais dinañ xam bu baax moom ak kii di Bassirou Diomaye Faye di candidat wu yi kan moo ëpp xam-xam lii lañ leen indiloon comme actualité ñoo ngi leen di jox dig daje ci yeneen i mbir incha allah